xibaar rajo buy leeral ak rajo leeral léppay leer ak rajo leeral kumpa jeex na asalaamaaleykum mbokk téléspectateur u Leral TV mbégte lay doon saa su nekk rek àjjuma bu jot bu nekk ñu ànd ak yéen ci seen émission focus euh, di waxtaan ak yéen lépp loo xam ne rek dafa laal ci wàllu actualité ak fi réew mi toll comme ni nga xam ni noonu lañ koy defee saa su nekk euh, focus nag euh, comme ni ngeen ko xamee yéen téléspectateurs yi ñu di ci ànd ak toujours sunuy naataango di sama gars yi nga xam ni macha allah. namoon naa leen lool waaye nag am na koo xam ne moom la ñu gënoon namm nag waaw ah, parce que dafa doon def euh, l'école buissonnière la doon def waaw ah, xam nga xale yooyu nga xam ne ndeysaan waaw dañ daan daw jàng loolu la Amina defoon ah, ndax Amina gaañ ma ne Amina fu mu jaar Amina fu mu dugg mu ne ah Amina daal ah waaw xam kom école ubbi na mooy élèves yooyu nga xam ni <laughs> ouverture rek lañ mën dañ koy yàkkamti dañ koy yenu sañse ñëw <laughs> waaye bu ambiance ouverture bi jeexee ba retour au ba cours yi tàmbali série yi <laughs> dootoo leen gis Amina nuyu naa la. <laughs> Euh, di leen nuyu di leen ziyaara di leen baal wax di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jégal ci barke bésu aljuma bu sell bi. ci barke weeru gàmmu bu sell bi tamit ñu nekk di leen wax yéen ñëpp jot na seen ay message sama euh, m'a vraiment fait euh, di leen nu yéen ñëpp ku si nekk fa nekk fekk naa la fa jàpp la loxo di leen welcome back to focus. <laughs> welcome to <laughs> <laughs> coach daa mel lu ma ci teg dem Nicaragua de xanaa <laughs> man tur bi sax dama xamul na dañ jàpp waaw waaw coach nuyu naa la Aminata. Mm. rentrée bi moom jaar na yoon quoi. Mm. xam nga fourniture yeeg yooyu xëy na mi ngi ci saakam. <laughs> di nuyu ñëpp ñun képp koo xam ne yaa ngi suivre émission Focus. Mm. di rafetlu encore une fois message yi nit ñi di envoyé et cetera ak encouragement yeeg yooyu. di leen ciy remercier bu baax a baax. danga danga wax fourniture rek sama xel dem ci damay suivre benn vidéo Mame Balla Mbow. ñu koy nuyu au passage. MBM. <laughs> moom Balla il est il est bien inspiré allah. Mm-hmm. ma gis mu benn vidéo waa ji dem toog ak papa ji quoi ko mm-hmm. jox liste fourniture yi. naan ko papa roulade avant. téere bu am solo la. <laughs> naan ko livre bu am solo la mais roulade arrière bi nag mais papa booboo gën a te garaaw. <laughs> Mambala il n'est pas <laughs> sérieux non Mambala c'est un c'est un c'est un phénomène dinañ nuyu nañu ko. mais xam naa ne que ñu dalal ko. waaw il mu jaar fii. xam naa dinaa ko dinaa ko contacter mu ñëw focus ñu waxtaan parce que gis naa vraiment. franchement euh, li muy def ci côté humour. mais à la fois instructif aussi. exactement loolu tamit c'est à saluer. waaw man dama <laughs> mais booy bi <laughs> mu ne ko papa nag tupak. papa ji ne ko man daanaa dégg tuppak de mu ne ko tuppak no Tupac xanaa bi Victor Hugo eh, moo ko bind eh. mu ne ko quinze mille lay jar papa ji ne ko ah fi mu toll nii treize mille pay ba mu dee mu ne ko treize mille la fi des de xanaa nga téyegum bii rek <laughs> pour wane élèves nga xam ne yàgg nañoo dribble <laughs> eh. seen parents yi nga xamante ni jànguñu di leen ndax ñu ñëw bind ci fourniture bi yokk ci loo xamante ni est-ce doo xam fu muy jógee voilà kon euh, chers téléspectateurs euh, mu mel ni rek euh, tey focus waxtaan bi rek dañuy tàmbalee fi réew mi toll ci suñu première rubrique ñu ci jógee dinañ waxtaanee métier waaye métier tey li ñu ci jël mooy vente. Mhm. ci wàllum njaay. waaye aussi itam thème bi dafay dellu ci sur le leadership focus sur le leadership politique sénégalais donc kon ci ñetti tomb yooyu lañu ñu fas yéene ànd ak yéen waxtaanee ko. fi réew mi toll nag tey dafa am phénomène boo xam ni. actuellement Sénégal mhm. <laughs> yaakaar naa ni sànq naan rëccale naa ba wax ko waaw jamono jii mhm. imaam yi mhm. yenn imaam yi yenn yenn imaam yi waaw ñi ngi jaar ci gaal gi ñi am na imaam bu dem ba yegg woote ne yegg na hmm? te ñu ngi ko doon xaar ci jiite ga est que am na ñoo xam ne da ngay jékki-jékki ne ana diw hmm. sa xarit boo ko ci dégg ñu ne la mu ngi jaar na Nicaragua hmm. waaw Amina ah fi réew loolu moom. bon lu waral tey jii phénomène boobu noonu tey. xam nga euh, dafa am benn pa bu mu mës a liggéeyal passage maa ngi koy nuyoo passage borom Sangomar TV. Mhm. dañu mës a dem ñoo jox dafa benn documentaire. Mhm. xam moom dama sopp wàllu jëm ci nature ak tradition ak coutume. c'est ñu dem si si. ñu dem bu may expliquer di ma woon ay kër yu bari ne ma boo xoolee fii. Mhm. ñu fi dëkk ñëpp dañoo jaaroon ci gaal gi dem. mais à l'époque c'était pas abusif comme maintenant et à l'époque c'était des pêcheurs expérimentés ñoo daan dem mhm. dañuy xam fan la vent bi di diriger woo période yi am haute mer ak basse mer période yi tempête di am digg géej mhm. te duñu réer mu ne ma bu ñu àggee il se faisait petit mhm. ba keroog ñuy am liggéey yàlla suturaal leen ñu am seen i kayit mën a liggéey ñëw dellusiwaat kon nag loolu moo nekk je vous je vous raconte cette histoire là parce que loolu euh, début li li créé Barza wala Barsax. daal hmm. ñu yàlla musal sax si baat bi. loolu moo jur tey Nicaragua. maintenant nag le problème si qui s'impose maintenant mooy ñiy dem xoolatuñu ci sécurité xoolatuñu ci assurance ñoom xam nga lu ñuy xool. Hmm. fii metti na naa dem fële. li ñuy wax use ba. maintenant nag conséquence bi mooy lan mooy que Sénégal train de vie bi dafa metti sànq ñu ngi koy waxtaanee avant ñuy tàmbali. train de vie bi métti na mais tamit dañuy war a xam ne à l' étranger. de vie bu gën a métti moo fa nekk États-Unis bi ñuy dem da ngay fekk des citoyens américains ñu nga xam ne fa lañ juddoo yaroo fa màggee fa mais qui dorment dans la rue donc le fait d' aller aux États-Unis ça ne nous garantit plus l' Eldorado qu'on nous soufflait avant. kon il faut que ñu bàyyi xel lool ci benn te ñaareel bi mooy léegi États-Unis dafa am ay sanctions yu sévères. ñuy teg ci kaw immigrants yi nga xamante ni ils sont clandestins. Mhm. ñaar ci ñoom benn bi laay njëkk cité mooy li ñuy wax the title 42 mooy le titre 42. loolu on l'avait voté sous Donald Trump boo leen demee su les réseaux d'information di ngeen ko fa fekk mooy dafa bloqué lépp luy demande d'asile parce que gaa ñi léegi li ñu xewal mooy soo ñëwee ba frontière bu ñu la jàppee nga ne non man Guinée laa jógee dafa am guerre wala Mali laa jógee dafa am guerre c'est juste un exemple que je donne dama ñëw fi pour demander asile tant que c'est pas vérifié duñ la ko may maintenant nag Donald Trump bu mu toogee moom dafa dàq complètement loi boobu demande d'asile tant que nekkul ci cas bu extrême urgence dootuñu ko mayati benn nit te boole nañ ci léegi une sanction de 1000 dollars soit environ 500 000 et quelques de francs CFA et aussi une peine de prison de 6 mois ferme sans possibilité de remise de peine da ngay tëdd 6 mois yëpp soo paree nga jëlee ci casier judiciaire boo xamante day dem Interpol léegi man damay samp laaj yéen ñi may seetaan bëgg a dem Nicaragua ndax jaral na leen ngeen tànt benn yoon ngeen dem lii yëpp fekk leen si ci ay jafeñ-jafeñ te tout en sachant que sànq maam Cheikh mu ngi wax ne 5 millions la ñuy déposé comme caution boo bëggee dem man je pense que wax nañ fii ci entrepreneuriat que avec 2500 on peut démarrer un business maintenant nag yéen ñi seetaan yéen lay tegal noonu ngeen am les conséquences ngeen xalaataat ci bu baax histoire de vraiment prendre des décisions beaucoup plus matures quoi yi nga xamante ni répercussions yi après du doon ñu ngay dem di ko denc armée lu Yoff à 15 heures. voilà euh, donc mais man foofu c'est-à-dire euh, jàngat bi ma ci am. Hmm. mooy nii comme ni nga ko waxee la vie chère au Sénégal. malheureusement. les conditions de vie euh, déjà avec euh, toutes les commodités yi nga xamante ni l'homme a besoin tey mu gis ci boppam. Hmm. mais nit ki du ci gis boppam. Hmm. du coup. c'est-à-dire du ñu encourager benn yoon ñuy jël euh, voie clandestine. di mm-hmm. dem pour mën a dem dem dem tukki. Mm-hmm. waaye aussi war nañu revoiraat li nga xam ni nag moom mooy jafe-jafe yi Sénégalais yi di dund c'est très mm-hmm. important. parce que boo xoolee coach affaire yi moom metti na trop. xam nga bu ñu demee ba nga gis Oumy Ndour euh, de la RTS xaw ma ba xam mu ngi fa ba tey. mais gis nañu mu porte benn yi ñuy def benn pétition. Hmm. di wax ci facture yu seer yi nga xamante ni actuellement nit ñi ñu ngi commencé mais c'est-à-dire les les Sénégalais sont fatigués. c'est-à-dire ñi leen war a jàppale jàppale wuñ leen. Hmm. ñi leen euh, bu fekkoon ni sax dañ lay may nga am lu la naqari nga exprimer ko. malheureusement ñi ko war a jot jot ko. mais léegi foo foo foo yëkkatee sa kàddu. Hmm. ñu yëkkati tey bu dul lacrymogène bu dul liif bu dul kaso bu dul nangam. baabal. bàbbal mais dafay dem ba benn instant sénégalais bi bu gisee tamit beneen yoon bu mu mën a jaar. dafay dem day dem yoonam parce que bu fekkee ni facture la. Mhm. yow facture nga ñëw ñu indi la facture million facture mhm. cinq cent mille alors que ni yow mhm. ñaar ba ñetti nit kese ngeen dëkk ci kër wala ñeenti nit coach waaw man je trouve que problème la boo xam ne dañu ko war a jàngat en toute objectivité su ma nee objectivité mooy ñu bañ a porter jugement ci ñiy dem. Mm. mais ñu xool rek de façon objective ndax yenn sacrifice yi jar na ko wala jaru ko. Mm. parce que soo leen bëggee juger da ngay sonn ku si nekk am na loo dund lu mett loo xam ni xëy na man bu ma ko dundoon wala daaw du dund ko dina dugg ci gaal gi dem. wala mu def lu ko raw sax. mais euh, xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. li mu wax ni laa raaxata fi dunia. waaw alxuraan am euh, àdduna. amul noppalu noflaay amu fi. mais mag ñi dañu wax ni. waxul laa raaxata fii Sénégal. cest mm-hmm. à waxul Sénégal àdduna la wax. Ah. am na looy daw fii. Mm-hmm. boo demee États-Unis boo demee Italie boo demee France nga fekk ko fa wala nga fekk fa lu ko raw. Mm-hmm. donc état d'esprit boobu ñuy demee jàpp ni c'est l'Eldorado jàpp ni dugg naa foofu mooy tekki naa. peut-être loolu genre genre obsession la rek. moom la hmm. moom la sa turandoo way xayaatuka fi dunya humumun wa ahzanun. wallaay fi jinaanil walaw gharbi is xaara exactement waaw ci <laughs> nekkal fi dëkk neexee. Hmm. su ngëm nekkul ci sa xol. su hmm. dund xajam na. est-ce que. ñàkk ngëm ñàkk xam fooy fooy teg sa tànk. parce que nee na yaa ngi dund États-Unis Ah, donte yaa ngi dund France ah. du tee du la du la ah. nga nekk ci ay soucis. Mhm. nekk ci ay inquiétudes nekk ci ay problèmes. Mhm. nekk ci coono. Mhm. isxaara imaan isxaara imaan a dimbali rek mooy ngëm. mooy nga am pas-pas. exactement ci li ngay def. ah kon de réew mi daal foofu la toll. jamono jii gars yi dañ doon jël ndox mi léegi jëlatul ndox mi ñu ngi ci jéeri ji. ah ginnaaw jaww ji moom daa am nu mu tëddee. jaww ji ñoom su daal lañ xàllal. Ah. ak ñoom Amina. déet bu bëggee dem mu yomb leen lool. waaye suñu classe bii ñun dinañ nañ toog ci daara ji rek. ah <laughs> nañ toog ci daara ji bu ñoom su demee. waaw dem ci use ba wala dem ca kii ba ba ba dajale lañ dajale bu ñu indee. gisoo ko tey muy niróo ak yi. <laughs> yow yow mën nga dem ay. Dubaay bi kii bi rek la dese touche bi rek la dese boo ko defee rek daal di ñibbi Qatar. kenn du la téye aéroport. ah bon waaw ah, non yii boo demee. rek ah. maintenant aussi Oustaz. Mhm. foofu noonu damay rajouter juste un petit point balaa ñuy avancer. mooy que xam nga. Mhm. système bi dafay créer des concours de circonstances. yu waral ndaw yi. Mhm. di jël gaal. mais man toujours est-il que j'insiste sur le point. ça me dérange de d'entendre que 5 millions de francs CFA ngay jël mhm. pour être toujours dans l'illégalité effectivement il y a des agences ici mhm. comme Millennium Travel Sénégal ñu leen di nuyu au passage mhm. mais approchez-vous d'eux boo yoree 5 millions nga dem ci agence bu mel noonu ne leen dama bëgg a tukki quel que soit sa statut sa euh, statut euh, nu ñu ko ci waxee professionnel boo nekkee entrepreneur wala nga nekk apprenti wala nga nekk fenn di stage ak loo munti def comme liggéey cinq millions Daoud dañ ko waxe teg te dee ku yore cinq millions war ngaa mën a créer un business au Sénégal soo demee nag ba munoo ñàkk ba munoo ñàkk toog Sénégal approche-toi des autorités compétentes ce sont les ambassades ce sont les agences qui sont habilitées pour ce genre de travail nga jox nga ne leen j'ai ça et je veux aller dans tel endroit ñu teg la ci yoon fii nit yore na fi sax deux millions tukki jaar ci yoon bu légal donc je je pense que et je je le je je suis vraiment indignée par le fait que les jeunes aussi conscients qu'ils soient aussi intelligents qu'ils soient ñu jël cinq millions di ko teg toujours ci illégalité franchement là y a y a quelque part où le bas blesse vraiment ñu bàyyi ci loolu xel bu baax daal. franchement. ok c'est daal foofu la toll. Ah. yàlla na yàlla dolli tawfiix. amiin incha ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay xat-xat nekk ci yoon wi. tey dem yàlla sàmm leen daal. wax nañ ñu sànq rek maa ngi gis ci page leeral point net. ñu ne 578 euh, sénégalais migrants sénégalais àgg nañ ca Espagne. île aux Canaries. est-ce que bañ jàpp leen. yaa ngi ah, leen jàpp. damay laajte kay na jàpp nañ leen am déet. waaw ñoom daal ñu ngi ci île ba daal ñoom daal. jot nañu àgg. île ba daal moom foofu Canaries. non île Canaries nag àgg fa nag li nit ñi xamul mooy garanti wu la nga dugg de. ah waaye daal dalal xel. <laughs> non non loolu moom dalal xel dafay yokk fitna gis nga bés boo dajewuloon ak. Euh, non maanaam yow Amina loo comprendre lul non am xam nga ñun dañu yaroo ci tefes. Mm. dëkk ci tefes ci booru géej. Mm. xam nga gars yi seen problème yëpp ci gaal. dem ba maanaam ñàkk gis ñu ci bari fan la ñuy yem entre Maroc mais gars yi bu ñuy yëgee ci île ba maanaam mooy dañuy jàpp ñoom dugg nañ biir Espagne. même ñooy xalaatee noonu. mais daal lu ci mën a am. Ah. man daal lu ci mën a am. mooy phénomène bii daal. Mm-hmm. li ko mën a régler leen régler sànq dama déglu enseignant yi. maa ko ko waat ci leeral. Mm-hmm. Euh, information leeral. Mm-hmm. lu bees. sunu confrère euh, Pape euh, Maguette maa ko dégg mu koy joxe enseignant bi wax bu ni. ñoom fi ñu toll balaa ñuy yegg sax anticiper ci euh, thème politique bi. Mm-hmm. mu ne ñoom balaa ñuy pare parrainer. Mm-hmm. dinañ déglu candidat yi ba pare. Mm-hmm. mu ne parce que ñoom proposé nañ ba ni enseignant bu nekk un an. non c'è più niente. Eh, alhamdulilah est-ce que yàlla suñu borom. est-ce que ah waaw. ñu noonu kon na ah, nañ ci bàyyi kon na imaam ñaanal waaw léegi nañ dimbali comme enseignant bi li mu wax noonu dëgg la mm. effectivement bu fekkee ni par exemple enseignant bu nekk mm-hmm. permettre nañ ko mu mën a am këru boppam mm-hmm. mais ki nga xam ne dem na ba tabax këru boppam kay kooku ça va yéex. sécurité am na yoo xamante ni doo dootu ko ko jaral. si si tout à donc nañuy déglu proposition yi nga xamante ni. Mm-hmm. Euh, population sénégalaise bi parce que population lañ boo xamante ni population bu neex a yor lañ nag. Mm-hmm. dafa waaw ñun assuré ñu ceebu jën bu niin. waaw ak ataaya ju baax. Mm-hmm. ñu mën a am suñu café Touba. waaw mën a dem mën a dikk. waaw nga wàññil ñu courant bi. waaw wàññil ñu non c'est non c'est pas je, je pense pas que ce soit dans le ventre de l'Atlantique non ventre de l'Atlantique mu ngi wax ci immigration clandestine, clandestine ouais. mais li may wax ni c'est un passage dans une des émissions bu mu apparaître mu ngi wax que ni quand c'est les noirs les métis les arabes qui viennent vers l'Europe et les États-Unis on parle d'immigration clandestine mais quand c'est les blancs qui affluent vers le continent africain à la recherche du soleil et des tropiques personne n'en parle personne n'en parle et sa c'est très phénomène bi ma doon tudd keroog ci livre boobu l'Afrique sans les Africains. Mm-hmm. Mm-hmm. méthode bi ñu am léegi di médiatiser Afrique boo xam ne day dellu gannaaw. Mm-hmm. pour que jeune Afrique di ko gis di génn di dem. pour que ñoom ñuy ñëw di saisir opportunité yi exact exactement euh, xam naa dañuy directement. comme ah. réew mi moom fi mu toll. Euh, nees mënta wax lépp daal. waaw ah, coach léegi dañuy attaquer directement suñu rubrique euh, métier vente. waaw ah, jëm ci wàllum njaay mi. Mm-hmm. waaw parce que wax nañ lu jëpp lu jëm ci recherche d' emploi. Mm-hmm. wax nañ ci entretien d' emploi. bi moom. waaw ak yooyu amoon na solo. Mm-hmm. wax nañ ci entrepreneuriat mais mais mais course bi nga ñëwee ci ci euh, discipline financière. xam nga noo ko tudd tuddatee woon. éducation financière éducation financière. benn la sax ak discipline waaw waaw amoon na solo lool daal. Mm-hmm. amoon na na si ñoo xamante ni. Mm-hmm. jaaw tàmbali tàmbali na noo daal am discipline financière. <laughs> kon <laughs> a a ne ma daal. Ah, waaw c'est na ñu ma si. tàmbali nañ di am discipline financière daal. waaw parce que sinon da ngay da ngay da ngay gañe xaalis faj sa soxla xaaraat beneen weer mais. organisation bi ci war doo ko am. Mhm. donc boo xoolee ñun démarche bi ñu suivre. Ah. wax nañu ci ñi nga xam ne dañu nekk ci wutim liggéey. Mhm. wax nañu ci ñi nga xam ne dañu bëgg liggéeyal seen bopp ci wàllu entrepreneuriat. Mhm. wax nañu boo liggéeyee ba am noo koy gérer loolu moo indi woon discipline financière bi. léegi nag il faut que ñu commencé jël ay métiers benn par benn. donc léegi métier bi wàllu njaay la ñuy jël. waaw waaw neewoon na neewoon na xaalis li ci soof mooy boo ko ñàkkee mu ne wuti ma boo ko amee mu ne jaay ma. <laughs> parce que jamono boo toll foofu. boo ko amul. waaw uti ma uti ma oh. ah. mu ne boo ko amee mu ne jaay ma jaay ma mu lay ñaan nga dépensé ko. waaw parce que bon wàllu vente. Mhm. Euh, dañ ci indi juste rek ba ñetti tomb. Mhm. parce que dafa nekk métier boo xam ne léegi ñëpp ñu ngi ci. Mhm. njaay mi waaw ah, boo duggee whatsapp léegi gis téeméeri statut waaw ah, ñii ñi ngi ci ay ay produits beauté. vente en ligne yi. waaw ñeneen ñi ngi ci leneen ak leneen ainsi de suite. Euh, lu baax la. Mm-hmm. mais aussi il faut que nit ñi am conscience ci ne tout s'apprend mm. loo gis rek dañ koy jàng. Mm-hmm. parce que bëri na yu ñu doon def miin leen dem ba def leen métier jàpp ni c'est un don donc ko miin nii rek di ko def. Mm-hmm. alors que aussi baax na ñu jàngal la ko nga xam fan ngay jaar. parce que tey gis nañu fi nit buy jaay benn produit di ko jaay yor ci ay boutique dem ba ki nekk tubaab wala mu nekk arab la leen doo nekk beneen dëkk. su bëggee indi ay produits am fii kooku lay jël comme représentant commercial. tout à fait. donc c'est parce que kooku am na am na marketing bu muy def am na image bu mu jox produit am boo xam ni xëy na keneen mi ngi doon gagner plus que moom mais mënul loolu. Mhm. léegi nag li ci ëpp solo. Mhm. tomb bu njëkk bi mooy wàllu négociation. Mmh. parce que jaay waxtaan la naxante la négociation la xëy na ñun dañu ko miin ba peut-être duñu. duñu duñu duñu ko bàyyi xel. Mhm. mais daf ci am solo. Mhm. xam nga tey je prends un exemple ñi miin marché Colobane. Mhm. Colobane boo dugg see gis la nga sol chemise ak super 100 rek automatiquement jaaykat bi bu la xoolee. xam ne système day xëcc benn costume wala benn chemise teg sa kaw ne la bii baax na ci yow de. donc kooku mi ngi koy def naturellement. wala mu seen la fële ngay ñëw. waaw ah. maanaam ko nii di la ko wan. voilà di la ko wan parce que da lay xool xam à peu près yow sa style lan la ngay góor ngay jigéen ngay xale mais euh, négociation. bi ci ëpp solo. mooy kii ñëw. nga nekk ci sa boutique di jaay wala nga yox sa ay produits wala ngeen di échanger ci WhatsApp beeg yooyu nga déglu ko. Hmm. ku la dàq déglu moo la dàq jaay. tout à fait am na méthode boo xam ni méthode bu yàgg la miinoon nañ ko xewi na mooy ñiy fëgg buntu kër Daado Mbaye mu ubbi salaamaaleykum waaleykum salaam waa promotion ñoo fi ñëwoon indi la benn micro boo xam ne mi ngi doon jaay juróom benn téeméer ñun ñu wàññil la ko ba ñeenti téeméeri. Mm. récité benn leçon. Mm-hmm. c'est normal noonu lañ leen formé ci njaay. mais léegi nit ñi li ñuy gis ci produit li ñuy gis ci ci ci ci ci marché li ñuy gis ci mbedd dafa bari. Mm-hmm. produit yu bari dañu dem ba late. Mm-hmm. donc yow yaay ñëw ci nit ki déglu ko poser ko ay questions yu bari yu tax nga xam réellement kii li mu soxla lan la. voilà bu ñaareel bi aussi mooy lien bi am li ñuy tuddee le rapport qualité prix. parce que daaw bi ngay li mu soxla ci benn côté mooy li nga koy jaay qualité bi na baax njëg li aussi jamono dafa metti mu bañ a nekk lu cher et cetera. Mhm. donc aspect boobu aussi daf ci am solo. Euh, ñetteelu aspe bi mooy euh, ma jeexalee boobu bëri na ñuy jaay dañuy mhm. jàpp rek ni li am solo. mooy tey man su ma la bëggoon jaay montre bi mhm. damay gën a insisté ci euh, avantage yi nekk ci montre bi ak lan moo war a tax nga jënd ko. fekk am na beneen aspect bu am solo non seulement li war a tax nga jënd montre bii dafa am solo. mais tey boo ko fi bàyyee dem jëndoo ko lan ngay ñàkk. ok ah, a priori cest à maa ngi bëgg a jaay montre bi daaw da su ko jëndee kes ki qu'il gagne su ko jëndul ba dem qu'est-ce qu'il perd est-ce que dina gisaat beneen montre boo xam ne qualité bii la. prix bii la et cetera. Mm. donc loolu aussi da nga siy réfléchir maa ngi sama produit di jaay mais képp ku jëndul. su jëndul mais lan lay per su fekkee il ne perd rien loolu mooy sama produit jaru ko. Mhm. donc aspect boobu aussi def ciy ñëwaale. macha allah parce que ni nga ko euh, énuméré rafet na. Mhm. Amina gis nañu di ci vente bi aussi tamit euh, li nga xam ni moom mooy la représentativité féminine. Mhm. ci côté njaay mi. gis nañu ne <laughs> ñoom sax. ñoom ñoo gën a présente ci <laughs> réseau yi. waaw ñun moom TikTok bi. ñu ñu romb ñu jaay ko la. man damay jaay. des seen bopp Aphrodite. waaw des daal des fois ma romb damay jaay damay jaay de. xam nga. Euh, njaay mi ci ci ci ah bon mi ci en ligne. njaay mi bari na moi mhm. lu laxasu ci njaay mi mhm. Mhm. xam nga li maam Cheikh doon léegi dafa am solo mooy que ni. Euh, da ngay mbir soo bëggee mu dox. par exemple tey on va pas parler de vente sans pour autant ñu wax ci besoin wu client bi jënd mhm. tey man Aminata je me lève damay dem ma jënd lan laay jënd daal moo ma tax jug société de consomateur ñi moom bu ñu doon topp sama genre gi danañ leen caw ay yat ba mu dëgër parce que da ngay dugg Colobane comme il l'a dit tu arrives euh, ñu xool sa style nga sol jàllaaba wala chemise super sang il te propose quelque chose identique à ce que tu portes maintenant yow su fekkee amuloo ce euh, ce cette retenue de te dire que écoute li góor gi doon wax ne comme internet la danga fay dem c'est comme le marché li la soxal ngay jëli mais leneen luñ la wan intéressé wu la léegi yow bu fekkee amuloo retenu nga topp yow sa bëgg-bëgg bala la fa yóbbu woon sax mujjee woo ko jënd moi je trouve que loolu ñàkk fay dal mais bon li tax ma commencé par loolu mooy que léegi tout est à vendre ñëppay jaay ñëppay jënd boo duggee WhatsApp da ngay fekk benn nit mu def 30 photos statut Mhm. Maintenant, moi, j'ai un conseil que je donne entre parenthèses. Vous, les vendeurs, dites-vous qu'il y a une manière de vendre, surtout en ligne. parce que bu fekkee en visuel la tu peux exposer toute ta marchandise il y a pas de souci nit ki mooy déplacé wu ñëw ci yow mais bu fekkee en ligne la il y a des systèmes fais un montage vidéo de 30 secondes où tu mets quelques euh, modèles du produit avec plusieurs couleurs et options différentes et à la fin am na ñu choisir de mettre le prix d'autres choisissent de ne pas mettre le prix intéresser inbox ça c'est une méthode qui réussit bien pour ñuy def vente en ligne moi je l'applique et euh, je me trouve bien dedans doo saturer ñi lay xool parce que sénégalais dafa taay nit sax leer dafa taayeel 30 photos franchement si je le vois damay xool ñaar après ma zappe je vais pas rester là à regarder mais loolu ci vente en ligne bi la maintenant ñu dellu ci vente jaba mooy ancienne euh, kii système bi ñu tàmm mooy nga lal di jaay balaa ngaa jaay xoolal ñi la wër fa ngay lal ku si nekk lañ lay jaay maam Cheikh banaan lay jaay mhm. yow ngay jaay ñaam bi man ma ñëw bëgg indi ñaam beeg banaan di ko jaay day metti concurrence c'est bien mais foofu j'ai une chance sur dix de vendre alors que su ma ñëwee xool ma ne écoute maa ngi nekk ci wetu tefes gi fi ma nekk soriwul géej te nit ci buñ fi ñëwee danañu ndugg lu ñu yóbbu seen kër au lieu de may jaay Cheikh ak Daouda di jaay parce que ku ñëw jënd si ñaam bi ak carotte yaa ngi xalaat jënd jën pour togg ceeb est-ce que tu comprends c'est un système bu nga xamante ne ni mhm. euh, je ne dis pas non à la concurrence parce que concurrence dina baax des fois mhm. pour ñu mën a casser prix yi mhm. mais tamit des fois il faut voir bu fekkee une concurrence voilà c'est que la personne n'a pas besoin ça doit être une concurrence loyale loyale oui mais aussi utile parce que boo ñëwee fekk parce que dama bëgg a diir mbagg maam Cheikh rek tax ma dem jënd euh, carotte gu bëri ñëw exposé ko ma mu jaayee kilo juróom ma ne man ñetti dërëm laay jaayee xëj na di nga jaay mais en fin de compte c'est c'est déloyal parce que xëj na moom mu ngeeg njaboot gi nga xamante ne ni war na leen dund te yow tu es juste là pour le conférencier histoire de dire li may jaay du ko jaay te dañoo bëgg defante surtout ñun soxna yi mm. maintenant je reviens sur le cadre de mm-hmm. euh, système de vente yi naka lañ ko mën a organiser wee Euh, marketing dafa nekk lu nit di jàng mais y a des gens qui ont le don. de nature ñoom dañu koy dañu koy judduwaale. dañu koy judduwaale mën a jaay bo leen joxee sax li ñuy wax suuf danañ la ko mën a jaayal mais bu fekkee ne yow tu n'as pas le don pour la vente si tu n'as pas le don pour la vente il faut pas faut pas vraiment euh, aller dans un sens où toi-même tu risques nga jënd marchandise muy reste déstocké chez toi le plus intéressant le plus intéressant mooy que Le plus intéressant c'est de vendre de manière intelligente. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. c'est-à-dire que tey jii xool naa ne Dakar euh, entrée des classes parents yi vente de sac à main euh, plutôt sac au dos pour enfants ak fourniture ay livres ça dépend ñun suñu temps kii moo amoon Sidi Erama sama <laughs> ñoom yaay Mamadou et euh, gisaat na ami Rémi mais am na benn système bu bees je pense Kocc Barma la ñuy wax. Ah boo demee euh, école ñoom bu ndaw moom nga fay fekk xoolal loo xamante ni c'est saisonnier nga koy jaay mm-hmm. loolu dafay assurer nit ki à ce que à chaque fois su amee marchandise day écoulé sans souci maintenant nag boo bëggee jël lu nga xamante ni du saison c'est un prix très élevé et c'est inaccessible et peut-être méconnu du public tu vas finir avec un produit non écoulé da nga mujjee nga wanteer nga déstocké nga perte et ça c'est pas une manière intelligente donc c'est un conseil qu'on avait à l'endroit de nos consoeurs et confrères euh, bu ñu mënee vraiment di opter par pour cette vente là de manière saisonnière okay. c'est quelque chose qui réussit à beaucoup de gens waaw mi daal a ngi noonu. waaw ah. daal gis naa ni. bu ma ko jàppee nag Ndiaye moo tax. waaw di jaay di kii bi mais man. xam nga Ndiaye mi. Euh, xam naa ni daal ci côté Ndiaye mi sañse bi. daal gis naa ni gis naa ni ñoom. Mm. bu ñuy jaay daal soxna yi daal ñoom balaa produit bi. Mm. ñoom ñooy gën a taaru sax produit bi ñoom. <laughs> yaa dañuy sol li ñuy jaay. waaw. dañ ciy sañ sax nag loolu même góor ñuy jaay dañ koy def ah, ah, ah exemple Colobane boo demee ci yi da ngay gis li ñuy jaay ñoom bu ñu xëyee moom la ñuy sol toog. mais nag ñoom vente en ligne bi nag ñoom live yi ñuy def. no moom waxeewul ci sens boobu. ah d'accord mooy li ngay jaay nga sol ko non non. loolu c'est euh, une tendance. très désolante moom mu ngi wax ci ñi nga xam ne bu ñuy jaay dañuy defar ba gën a jekk marchandise bi ñuy jaay ah. c'est-à-dire ñoom vitrine la ñuy doon voilà dañuy dañuy maquillé wu ba jekk maanaam njaay gi est-ce que est-ce que jaay amu ci waaw mais ci la bokk loolu mënoo leen ko bañal non parce que xam nga tey boo si waxtaanee nga ne lu lu ñu war a dàq la bu may génn fii ñu may song non dàq ñu ko waaw mais lu ñu jar a seetaat parce que ñàkkul am na koo xamante ni ci jaay googu noonu waaw si lay amee borom <laughs> kër bu si dafa mel ni suivre na leen. Ah, da leen di suivre. <laughs> mais loolu mënuloo ko xeex ko xeex. am nga ah mais loolu lu am solo la moom bàyyi ko noonu rek. ah non c'est une tendance et ça marche très bien. Hmm. pourquoi parce que bët buy xool li ko attire dafay yomb des fois mën na jafe. Hmm. boo xoolee am na si ñu koy def si góor ak jigéen nag du soxna yi képp nag. maanaam léegi daal am ku inbox. no attends rek. gis nga. ba far inbox xale bi. waaw mais mais nag mais nag par contre lépp dañ koy teg si uh-huh. si si lu normal. Uh-huh. avec le plus grand des respects. Ah jigéen buy jaay marchandise am. Uh-huh. sañse dafa bon je je prends l'exemple sur moi. tey par exemple je suis assise dans les locaux de Leral. dama ñëw jaayuma damay partager le peu que j'ai en matière de recherche et de connaissance avec les gens. Ah am na benn. dress code bu nga xam ne su ma ko opté wul. su ma toogee ci télé bi di wax duñ ma déglu. donc il faut donner l'envie aux gens de te regarder d'abord ensuite de t'écouter et de comprendre ce que tu dis suñu noppee ñoom ñu adhérer ko. Mm-hmm. et c'est une manière et je j'insiste là-dessus de vendre. Mm-hmm. très légale et légitime bàyyi soxna yi ngay sànni <laughs> te ku ci am wërsëgu avance si borom kër xayrun. daal day sànni xeer. bàyyi jàmbur yi ñu ñu daal di avancer ci thème kon njaay mi mu ngi noonu xam naa rek euh, am na solo. Mm. métier vente bi njaay mi lu am solo la. Mm. ndax boo xoolee suñu yaay yi ñu jàmbaare lañu. Mm-hmm. Mm-hmm. ñoom dama xam ni. Mm-hmm. bu bu doon tey. waroon nañ leen jël di leen yóbbu ci école yi. wala ñuy jàngale ñuy jàngale jàngale di def coaching comme ni comme ni ko maam Cheikh di ko def ak ñoom Amina ñu ma si formé mais parce que maire yi danoo mën jaay de ah jàmbaar mooy li ñu wax sànq si le fait que ça soit ma ciy sargal suma suma yaay macha allah moom da jaay mais dama gis ni ndeysaan bi muy jaay hmm. euh, bu école ubbee ñun fourniture yëpp day mat kay day nekk foofu bigi ne fa livre nga foogoon ni nag sa yaay moo ëpp xaalis ci àdduna bi. <laughs> ndekete li nga doon li nga doon jàngale. cest éducation financière. Mm. moom lañ amoon. Mm. ndekete moom boobu mu ngi bokk ay natt. ndeke natt yi muy bokk. day mm. bokk nattu kaye fii bokk nattu livre fële. bokk nattu nattu yére ouverture fële. ak saa geeg ya caaju. nga xam ne bu école. boole ci dépense quotidienne. ubbee. yow fekk sa lépp dafay mat. Mm-hmm. kon loolu yaakaar naa képp kuy yaay képp kuy soxna. loolu tamit war nga ci mën a bàyyi xel. Mm-hmm. ñu xam ne njaboot gi ñoo ko bokk. Mm-hmm. te kenn ku ci nekk daf ci war a participer. ndax bari na kuy jaay koo xam ne ndeysaan li muy jaay. Mm-hmm. lenn rek a tax muy jaay pour mu mën koo faciliter. bu jaayee ba pare tibbal waa këram añ. tout à fait hmm? am koo xamante ni bu jaayee guddi gi. da koy faciliter mu mën a jox njabootam lu ñu reere wala ne du ci am sax du ci am sax bénéfice. ñu mel noonu jarul ñu sax di waxaale. non non moo tax daal jàppale nañ leen jàppale rek. nañ leen jàppale waaw parce que des fois aussi jënduloo parce que liñ lay jaay dafa utile pour yow. Mhm. mais da ngay jënd ngir yàlla ak. contribuer ci seen seen nii da ngay jënd ndeysaan xool koo xam ne da ngay jënd ci moom mu leer li ngay jënd nii. wallaay jo yitte gi sax bari lu bari lu ci yow lool. mais je vais te donner un bi. Mhm. daaw dama dugg si benn taxi nii wàccee vitre bi benn paa jege di jaay ay wantaay yu ñu ràbb. Mhm. mais le vieux il est sourd et muet. Mhm. te vision bi leeru ki mu àndal moo ne ma dafay jaay ëppukaay yi ma ne ko ñaata la mu ne ma non du dégg dafa tëx dafa luw. Euh, il faisait chaud c'est vrai j'avais un éventail entre mais dama ko lem doo ko sama sac jënd vent kii éventail bi bosam. ma ne ko ñaata mu ne 1000 francs ma fay 2000 jënd ko après def naa ko sama story di wax que ni. le vieux qui m'a vendu cet éventail est sourd-muet, sa vision n'est pas très claire. Et pourtant, il s'est euh, aménagé pour faire un éventail, sachant qu'on est en période de chaleur. maa ngi doon wax sànq ci vente saisonnière yi. xam voilà mais nag xam nga loolu c'est un message qui était adressé aux jeunes ñi nga xam ne dañuy toog ne nguur gi lay xaar pour mu jox ma liggéey. c'est que ndeysaan l'islam l'islam dafa jàngale lépp. ah yonent bi jàngale lépp. mooy li maam wax rek lawla nabi rasulullahi maa olifa xadaaratu mm-hmm. mm-hmm. sha'nuha al ikraamu lil ghuraba bu loolu moom kenn du xam civilisation wallaay ndeysaan ndax li ilaafi qurayshin bu muy jóg ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf parce que rihlata shitaa'i wa sayf mooy migration commerciale waaw migration commerciale jamono ju nekk nga xam lu mu àndal bu tàngaay jotee nga jaay si vêtement mm-hmm. bu seddaay jotee nga jaay pull Ah. mais mais mooy li rek. Ah la vente saisonnière. loolu lu am solo la. Ah Aïcha kon ñu dellu ci thème bi muy suñu dernier point. Mhm. jëm euh, focus sur leadership politique sénégalais. jamono ji nag euh, làmb ji sàjj na. Mhm. comme nu ñu koy waxee waaye làmbi politique moo sàjji. Mhm. waaye làmbi politique googu sàjji <laughs> waaw man nag euh, je déclare solennellement ma candidature. <laughs> ñu ngi ci soixante ñaata. ñoo ne boo faloo xam naa imam boobu ngay njëkk a jëli. néew ma la déedéet parce que boobu boobu c'est quelque chose qui lui tient à cœur <laughs> mais ñu ngi ci 60 ñaata. ñu ngi ci 60 ñaata coach. ah waaw dugg nañ ci. candidat yi de. 60 ñu ngi yokk rek di de. waaye de man daal candidat yi am naa ciy nawle. Hmm. Hmm. waaw. macha allah am naa ciy nawle tojuma fenn nag. Hmm. waaye am na tur yu ma gis ci biir candidature yi. am naa ciy nawle nag. te neen lan la ñu wax nee nawle. man de xaw ma ko dégguma wolof. <laughs> dégg naa daal fan yii nee nañ nawle daa foor. ah bon ah, te daa mel am naa ci nawle nag. ah bu nawle yi ci wéer da ngay xam nga làmb catégorie la. Mhm. xam nga daa ay premier combat am deuxième combat. am ba pat avant nga dem. waaw avec frappe. waaw léegi nag bu ma mënul egg grand combat. man mm. naa bokk ci làmb ji ñu may tudd rek. waaw. waaw xam nga ñu bokk yoo xam ne da bokk pour ñu waxin la déggin la laaj man daal naa dugg naa bokk ci affiche yi mhm. ñu xam ne bisu tay jii mhm. làmb ji événement bu rëy la ci biir événement bi man bokk naa ci mhm. moo tax kon si déclare ma candidature <laughs> léegi bu paree daal <laughs> leen wax <laughs> nan laay tegee man sama sama campagne bi nu ma koy dérouler ah dinaa wax si moom lan laa koy confier yow tamit dinaa am lu mën a dégg amul solo ce politique sénégalais waaw euh, loolu la ñu wax ni la ñuy waxtaanee tey. Mhm. wàllu leadership politique sénégalais parce que contexte bi moo ko laaj. Mhm. dañu toll ci contexte bu nga xam ni euh, c'est la course au candidat ku ci nekk yaa ngi jéem a xool ñi fi nekk di njiit ci wàllu politique. Mhm. kan moo la ci mën a doy. ñenn ñi ñi ngi ci parrainage yi ñenn ñi ñi ngi signé et cetera. candidat yi nag Euh, am na ñu bëri ñu commencé di feeñ. Mhm. en fonction des partis politiques. Mhm. am na ñu ci dégg ci wàllu jigéen ñi am na ñu ci dégg ci wàllu góor ñi. Mhm. Euh, loolu moo ñu gën a poussé à ce que ñu ne tey dañuy def benn réflexion ci leadership politique. c'est-à-dire lan la ñuy xaar ci ki nga xam ni njiit la. ci wàllu politique parce que Sénégal. man je dis souvent que suñu crise yi ëpp doole crise de leadership daf ci bokk. parce que xam nga. Euh, je pense que am na ku ko doon wax ci poète arabe yi di wax ni. Euh, imam Bousri si boppam sax di wax ni mënuñu xëy rek ay institution nekk en crise mhm. su amee rek c'est parce que nit ñi jiite institution yi ñoom ci seen bopp ñoo nekk en crise tout à fait mhm. jubóowuñu ak seen bopp loolu la ñuy tuddee crise de personnalité tout parce que su ma xëyee sama kër jàpp ni mhm. man maay leader politique bi maay ministre bi daawda bi nekk ci koñ bi maa ko gën. Mhm. Aminata bi nekk sama bureau di ma liggéeyal maa ko gën. Mhm. crise de personnalité boobu. Mhm. sama leadership. loolu daf koy entaché. daf ci yàq loo xam ni. su ma jiitee loolu rek mooy feeñ. mais loolu est du euh, warul am benn introspection. exactement. parce que dama gis euh, introspection bu am solo Imam Dame Ndiaye da ko def. mu ni xale yi ñu ngi ñuy saaga. mu ne mais ñun est ñun imam yi. suñu discours war nañ ko waruñu ko seetaat. tout à fait. mu ne li tax xale yi tey di ñu saaga xam nga saaga kenn du ko cautionné. mu toll li imaam ko saaga. mais moom dafa def benn introspection. mu ne léegi est-ce que jotul kon ñun imaam yi ñun ñu toog xoolaat suñu bopp xool ndax ñun. Mm-hmm. li xale yi soxla. Mm-hmm. ak seeni i jafe-jafe ndax ñun imaam ñu ngi koy wax. tout à fait. xam nga. mais xam nga euh, loolu c'est un vrai leader mooy toog ba mu yàgg. Mm-hmm. mu accepter. quelque part xoolaat ni quelque chose ne marche pas. Hmm. waaw léegi nag introspection boobu lañ dul miin di def. tout à fait. li tax duñu ko miin euh, xam naa Aminata dina nekk gën a yaatal style de leadership yi. Hmm. parce que da nga nekk un leader politique mais dafa am façon yoo war a doxalee. Hmm. tey sénégalais yi xëy na am na ñoo xam ne am na ñu ñu tànnoon ba pare ñu nekk seen wàllu njiit sur le plan politique. am na ñoo xam ne ñi ngi toog di xaar ba xam. ñi fi nekk ndax dinañ tenir discours bu leen convaincre. Mhm. ba ñu seet kan la tànn ku ñu mën a wóolu. Mhm. voilà mais introspection boobu mooy tax nga xam ñun ci suñu doxalin lan moo ci nekk ay failles lan la war a corriger lan la ñu war a gën a améliorer mais malheureusement ñun suñu culture mii ni ñu loolu. Mhm. parce que ñun ay sénégalais lañ sénégalais parfois dafa dafa dul mën du ñëpp. mais bu ñu ba nekk njiit. dañuy dañuy nekk ci seen fayda dañuy nekk ci benn genre. dañuy waaw nekk beneen nit. dañuy dem parfois ba àgg foo xam ne yow jàpp nga ni. Mhm. yoon bi ma nekk nii. su ma mhm. ko bàyyee sax ñu yàpp ma. tout lii ma nekkee nii. Mhm. dem naa ba gis ne amatul njëriñ. waaye sañatuma ko bàyyi. mooy ancien régime bi gis naa ama amalatuma benn njëriñ mais dama naan du ma ko bàyyi. parce que tegu naa ci. Euh, miin naa ko bu ma ko bàyyee nit ñi ree ma wala dañ may yëpp. Mhm. ou des de ce genre. Mhm. donc yooyu yëpp da gis ni soo toppee crise yi ak problème yëpp. daf lay delloowaat toujours ci crise de personnalité boobu. tout à fait. moo tax nag nit ñi di xool kan la ñu war a mën gis ko dalal seen xel. Mhm. on va vers des élections yoo xam ni. très attendues. muy 2024. yal na yàlla yóbbu ñu ci jàmm ñëw na. ba ay weer doo nga ci des. ñu jëm foofu tey. am lu ñu jot a traversé. lu mmh. bare bari ci ay xew-xew ci réew mi. Mmh. ci jafe-jafe ci ay revendications. Mmh. certes am na ay réalisation yu ñu jot a def. mais on voit que réalisation yi ci côté aspect matériel. moo ëpp ci réalisation yi. certes. léegi nag d'autres aspects yi nga xam ne ñi ngi koy xaar tey ci deux mille vingt quatre. tey ban leadership. bu efficace lañu war a mën a. teg comme exigence. Mhm. ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy dagaan baatu askan euh, c'est une question très simple mais très difficile à répondre. Mhm. parce que bu fekkoon ne de suñu leader yi ñu am yëpp ñoom ñëpp ñoo bokk euh, leur style de leadership Mame Cheikh l'a dit tout à l'heure on va citer mhm. en bref rek les styles de leadership qu'il existe mais su fekkoon ne ñoom ñëpp ñoo bokk style de leadership style de démocratie on pourrait dire que oui. Selon le programme de Untel et de Untel, nous espérons qu'après les élections de 2024, on pourra avoir ce type de changement côté réalisation. Ce sera moins sur le plan matériel et plutôt peut-être peut sur le plan humain, euh, la, pri la priorisation de l'être humain, qualité de vie wu nit ki boo tabaxee qualité joxoon nit ki euh, yombaluloo ko dépense euh, ça c'est un leadership qu'il faut revoir soo defaree ay hôpitaux mbaa nga tabax ay juma wala ay église te ña fay dem pour ñu jaamu yàlla seen xel dalul ndax seen biir feesul wala seen njaboot fa ñu nekk euh, amul sécurité bu doy c'est un style qu'il faudra revoir maintenant euh, il y a plusieurs types de leadership nous avons en tout je pense onze on va juste en citer quelques il y a le leadership autoritaire qui est plutôt du style de Muammar Kadhafi si je ne me trompe pas mm-hmm. euh, les gens le taxaient de dictateur, alors que c'était quelqu'un d'autoritaire. Il avait un leadership autoritaire. Il imposait à ce que moom li muy rëdd moom la ñuy topp mais en retour doonul woon si fokke son si son peuple doon na leen teggil courant je pense ak ndox mhm. te ku liggéeyul boo nekkee ci unemployment voilà voilà ak frais hôpitaux yi euh, ñëppay jàng ku liggéeyul da ngay am benn subvention bu la état bi di jox à chaque fin du mois. wàllu santé te te boo bëggee takk jabar état bee koy subventionné. exactement waaw loolu mujjee naa neex de. ah yii Libi. bu tax am ñu dem Libi ah Libi gawoon. gawoon waaw. Libi gawoon mais nag par contre y a le fils de Hadafi qui est sur les pas de son père mu ngi bëgg a defaat mais en en présentant en promettant un style complètement différent. Mm. maintenant on passe il y a aussi le leadership participatif que moi j'aime bien euh, comparer au leadership transformationnel. Mm. qui est un bu nga xamante nii du ne leader bi mooy toog rek ne nanga ak sàngam laa bëgg moom la ñuy def dafay ñëw indi ses idées posées sur la table euh, les partisans ou les citoyens quand on parle d'un élu mm-hmm. mais bu fekkee ne ci ki nga xam ne dafa nekk ci course vers la présidence kooku c'est quelqu'un qui va venir mettre ses idées sur la table mm -hmm. demander à ses euh, euh, à ses partisans ou à ses sympathisants leur avis ñu daal di taillé ba xool li nga xam ne à c'est à la mesure des besoins du peuple. mais leadership participatif boobu noonu dafa war a tambale ci moom le leader même. oui oui lui-même il adopte ça parce que loolu lay tax mu ñëw jël ses idées posées sur la table à demander. moo ci war a jiitu. moom moo siy jiitu. Mhm. parce que xam nga fii booy dégle sangaay day fekk nga seet ba noppi. Mhm. donc euh, on va passer très vite parce que thème bi dafa yaatu. Mhm. on a le leadership du laisser aller maam Cheikh dama bëgg nga ñëw foofu mooy le leadership délégatif. on a le leadership avec des projets innovateurs. day ñëw fekk lu musul am Sénégal mm. je pense que je nommer le président Wade avec le monument de la Renaissance et tous les mm. métiers qu'il a créés au-dessus si ça avait bien marché mm. euh, les, les, l'autoroute à péage qu'ils ont amené et les métiers que ça a généré avec la collaboration de Eiffage entre autres loolu c'est un leadership visionnaire mooy fekk nga Sénégal ci période boo xamante ni route nationale yi baaxul. ndox bi dese na accessible au peuple. nga mhm. fexe ba loolu fi amul woon nga indi ko fi sa c'est un leadership visionnaire. on a aussi le leadership basé sur le coaching boobu moom dama koy bàyyi xel sa mbir la. Mhm. et nous avons le leadership démocratique euh, et le leadership affiliatif ou collaboratif bi nga xam ne dafay delluwaat si leadership participatif bi ñu waxoon sànq. Mhm. mais xam nga li si ëpp solo mooy que ni on va parler de leadership de leadership. mais lii ëpp solo man je pense à de mon humble avis hein c'est que ñu tabax nit ñi ba pare. Mhm. c'est-à-dire que yow mi nekk un leader soo jugee nga ne dangay ngay créer un mouvement pour défendre les intérêts du peuple nga la waaye bés buñ la tegee ci kaw nguur gi. Mhm. wala ñëpp jël seen kàddu jox la dénk la ko buñ la fa tegee sàmmoonteel ak kàdd gu njëkk ga. mooy li taxoon ñu teg la fa danga ñëw nga ne man Aminta Ndiaye dama gis ne Sénégal lekk bi dafa inaccessible ndox bu sell bi dafa inaccessible. nappe phréatique yi bëri nañ fi au lieu de nga leen di délocaliser di leen indil yeneen coow te danga nga leen def ay promesses yu dul àgg jëmal xool nu améliorer seen style de vie. buñ la buñ la fa tegee nag dañuy tàmbalee ci assemblée balaa ñuy dem ci présidence parce que on parle de présidence de présidentielle 2024. Okay. maintenant nag ñu ngi tàmbalee ci koñ yi. Hmm. dem ba assemblée ngay ngay représenter le peuple. nañu fàttaliku benn mbir nii la valeur. am la plus importante mooy jubbu gi Kocc Barma di wax ne ku wat jubbu bala fal mhm. nga ko suñu leader yi dañ leen wax nañu bàyyi xel ne ñun ñoo leen fa teg dañu diis de te bés bu ñu soofee ñu yëkkati leen fa teg keneen ku ñu am ci moom yaakaar et ce cycle ne va jamais s'arrêter tant que ñoom li ñuy déggoonte li ñuy déggoon dégg dégg ay waay ñàkk dégg wolof baaxul li ñuy promettre. Mhm. ak li ñuy diggee. waaw li ñuy diggante ak ñun. Mhm. sama yaay dina ma rey tey li ñuy digg. <laughs> non diggante ak nit yi. Mhm. nañ koy wooy ak loolu parce que yaakaar dafa fort. nit bu jëlee yaakaaram dénk la ko en tant que leader. da nga war a forger sa bopp et je pense que Mame Cheikh va venir sur mmh. l'entourage mm. Mm. buy mën a tax le dirigeant en tant que tel moom jikko yi muy yi muy jéem a incarné mm. day fekk ne mu ngi ci boppam ba pare am na solo ñu bañ a guddal merci euh, léegi coach ba léegi Amina moom wax na ci leadership de manière générale mm-hmm. mais euh, leadership politique leadership politique sénégalais li ñuy xaar ci moom ndax dafa am ay point yu am am solo. yoo xam ni ñu ngi koy xaar ci candidat bu nekk. Mhm. mais ñu gis ni sénégalais yi jamono ji li ñuy gën jooy. Mhm. éducation ci la. tout santé ci la. Mhm. maanaam la vie chère. yooyu noonu nga xam ni tey ñu ngi koy xaar. ñu ngi koy xaar tey ci candidat bu nekk. tey ban leadership lañ war a mën a adopté boo xamante ni ci politique parce que gis nañu nii ñiy dagan bagaatu baatu askan wi. Mhm. da des fois dañuy xaw a diis. waaw dañuy xaw a diis daal. mën nañ nag bu campagne jotee <laughs> ñu ñëw fekk ci baby foot bi xale yi di babi. wala xale yi di petit mhm. ñu ñëw petit ak yow. wala ngay saaf gerte ñëw di gerte ñu saaf la la. ngay <laughs> mais li ma jaaxal mooy la ñuy ut buñ ko amee. benn dootoo leen woo téléphone ñu jël. inaccessible. boo soxlaatee rendez-vous dootoo ko am. Mhm. est-ce que loolu noonu tey euh, un bon leader. Hmm. war na mën a nekk inaccessible. bon inaccessibilité bi. et injoignable dafa xewi. Hmm. xewoon na nag euh, que ce soit ci milieu politique que ce soit ci yeneen milieu. nga hmm. nekk benn nit boo xam ne balaa ñu laa jot fan fanweeri nit dox ci sa digganteeg leader bi. nga ñëw benn secrétaire xaar loolu. suba nag leader yi loolu daf leen di neex nag. waaw ne la waa ji dafa mujj am réunion demal ba suba nga ñëwaat. xam nga euh, dafa am benn benn genre rupture. Hmm. benn rupture de contrat bu am entre ñi nekk ci le milieu politique ak le peuple. Hmm. contrat bi ñu séqoon dafa am rupture. Hmm. il faut que ñu signé waat beneen contrat avec le peuple. parce que ñoom dañoo war a xam ni population mythe bi ñu amoon ci ñoom dafa deñ dafa deñ parce que par exemple candidat yi fi nekk yëpp am nañ page Facebook. mais yooyu yëpp dafa wane ni euh, mythe bi daanu na. mythe bi bu daanoo rek y une rupture. pour ñu signé contrat nag il faut que ñu tegaat ay clause yu bees. xam nga dafa am benn borom xam-xam bu ñuy wax André Guillabert. dafa xëy rek ñu fekk ko mu triste. ñu laaj ko li ko tax a triste lan la mu ne parce que Sénégal léegi dafa am crise de style. Sénégal dafa amoon le style Senghor. mu am idéologie politique am. am programme am am nu mu koy doxalee. Mhm. ñi gëm idéologie bi topp ko. ñu gis fële Mamadou Dia. les jaïstes topp ko. moom am idéologie ñi ko gëm topp ko. Mhm. ñu gis gis Blaise ñu gis Lamine Gueye et cetera mais dañu dem ba léegi crise de style bi li ko indi mooy nit dina politique di wax suba ba ngoon. Mhm. mënoo xam idéologie politique am lan la. tout à fait mënoo xam ndax c'est un par exemple. Mhm. mënoo xam ndax dafa bëgg a woote un leadership participatif. mënoo xam fi mu ñuy jëmee fan la. loolu day poser problème c'est-à-dire que nit ñi dañu commencé di démotiver wu ci wàllu politique ndax loolu. loolu problème la ñaareelu problème bi mooy. il faut que ñu ñu bàyyi xel ni euh, l'ancienne école. Mhm. ñu baal ma mënatuñu apporter lu bari la jeunesse actuelle. tout nag contre ñi nga xam yi non du du du clash pas yi sax non wax dëgg la sax ah, du pas mais la méthode de faire méthode ancienne bi. tout à dafa am benn façon politique benn façon diriger boo xam ni. Mhm. Mhm. mais Daouda mbay bu xëyee dem ci école bi. Mhm. jóge fa war a ñëw leeral tourner émission ci diggante bi mu jaar sa bureau nga bëgg ko xaaloo 6 heures de temps dafay dem bàyyi. c'est pas possible. Amina bu fa toogee ñaar woo ko mu war leen livrer wala ñu woo ko ne ko atelier bi changé nañu heure bi heure dafay dem bàyyi la fa. donc jeunes yi fi nekk. dañuy soxla benn pizza ñu ñu commandé ko léegi ñu indi leen ko dans quinze minutes. du mm. ñooñu ñooy toog di xaar six heures de temps benn nit. boobu il va falloir ñu ñu revoiraat ko. Mm-hmm. moo tax ñi ngi gis yenn profilu candidat yi. Mm-hmm. am na si ñoo xam ni peut-être li ñu incarné nit ñi mën nañu am yaakaar ci ñu nekk visionnaire. Mm-hmm. je donne un exemple. c'est exemple du pur. ñoom indi nañ un candidat muy Aliou Mamadou Dia. Euh, koo xamante ne euh, ci wàllu Nations uni liggéey nga ak une trentaine de pays. Mmh. kooku am nga expérience boo xam ni tu peux apporter quelque chose. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu mel noonu. Mhm. mais bu fekkente ne dañu topp une ancienne méthode rek li benn mag waxoon mu ni Sénégal coup d'état militaire du fi am coup d'état administratif moo fi am. Mhm. il faut que ñu am ñoo xam ne dañuy dimbali ñu génn ci coup d'état administratif boobu. ok c'est ça waaw loolu am na solo ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. ci leadership politique bi. Euh, liñ ñu cërale woon ci waxtu nag fi daanaka li ci des bareetul. waaw nañu ko jéem a tënk waaw xam naa euh, Amina li ñu dese moom matatul sax cinq minutes. <laughs> Mbadou donc moi je vais juste. waaw xam euh, def euh, beneen dernier kii benn synthèse. Mm-hmm. ci leadership politique sénégalais bi. Mm-hmm. ak fi ñu ak li nga xam ne moom la ñuy xaar ci candidat yi. Mm-hmm. parce que tamit présidentiel lu tax moo solo. Mm-hmm. mooy yaakaar gu bare bëri mooy tegu ci moo ci aju. tout à fait parce que ndeysaan am na koo xamante ni mu ngi naan deux mille vingt quatre bii ce la bon te yàlla nañu ko yàlla defal mu nekk la bonne amiin amiin incha allah alors euh, maam Cheikh Sane lu am solo lu mu wax mooy la vieille école. ce mythe. style cultivé autour d'une autorité. léegi dañ koo dépassé parce que on a les réseaux sociaux on a euh, l'internet li doon nourrir mit boobu mooy que ni le candidat ou l'élu on ne le connaissait pas minante wuñu woon ak moom on n'entrait pas dans son intimité aujourd'hui da ngay gis ku def benn documentaire sur la vie et l'œuvre d'un candidat ou d'un président dañ leen di miin kon bu ñu bëggee jot ci ñoom jotuñu ci ñoom juste parce que dañ leen bëgg a caaxaanee mbaa ñu fowe leen mais dañu bëgg jot ci ñoom parce que nit boo xamul la muy dund mënuloo koo faj. Mhm. dañuy wax ne feebar bu siiwul du mën a wër. kon nag euh, loolu maam Cheikh di wax dafa am solo te bu ñuy xool euh, sànq ci suba bi ñuy préparé thème bi sama yaay mu ngi may wax benn affaire bu am solo. Mhm. ak maam sama rek maa ngi koy nuyoo passage ñu ngi may jox l' exemple de Mamadou de Senghor et de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. ñu wax ci élégance politique plutôt que ni ñoom ñaar c'était le plus grands rivaux politiques à l'époque Serigne Cheikh était l'opposant de Senghor le plus euh, robuste mm. bu gën a taxaw mais bu bu bu problème amee si dëkk bi Senghor dafa jël rivalité politique mu tegee ko ne woo góor gi ne ko kaay Sénégal daf ne soxla parce que nangam ak sangam ak sangam moo fi ne loo ci xalaat élégance politique boobu dina baax suñ ko mënoon a remixaat tegaat ko ci table bi mais mais jadis <coughs> C'était dans l'adversité politique. C'était toujours dans l'adversité politique. Par, mais... par, par l'élégance. Mais actuellement, il n'y a plus d'adversité politique, il y a l'inimité. Mm. Malheureusement. L'inimité euh, politique moo fi nekk. looloo tax nag ma ne la je rejoins ce qu'il dit. Mm -hmm. en disant que système bu doxatul da nga koy teg nga jël buy dox. parce que ñun ñi léegi on est dix huit millions je pense de Sénégalais euh, avec une population très jeune on sait ce qu'on veut et on attend juste. avoir quelqu'un nous le proposer. Je suis très ravie par contre, en passant, de le citer qu'on a euh, des femmes euh, qui sont sur la liste des élections présidentielles de 2024. Mm -hmm. Je peux nommer euh, Madame Mimi Touré, Aminata mhm. Touré, mm -hmm. Madame Aminata Talsal, Aïda Mbouch, Rose Wardini et la dernière cadette, mm -hmm. Anta Babacar Ngom. jigéen ñi rek ngay tudd. ah mais je suis féministe nëbbu ma ko. donc juste pour dire que ni. Ah, nga jaaree fa nga tàggoo ñu ngi ñu ngi <laughs> ma tàggoo jigéen candidat jigéen ñi rek nga fiy tudd. <laughs> am nañu yaakaar daal mais euh, di gën a waxaat suñu dirigeant yi ne leen. nee na Queen Biz bokk na te Queen Biz moom classe Yirim gii. Queen Biz je n'ai rien Queen Biz la la ñuy topp ñoom. non moi je n'ai rien contre elle moo tax teel na ma ko sifflé. je n'ai rien contre aucun. aucun candidat. waaw maanaam candidat bu nekk dafa am. dafa am public xam nga may wax. ku ne da nga yëkkati sa loxo. nga ne xam naa artistes moom la ñuy voté. mën na nekk. waaw ah, surtout jeune artistes yi. <laughs> mën na nekk. Ah. mais xam lu ma bëgg daal ñu bàyyi ko xel mooy sunu sunu papa Youssou. xam nga lu kii wax sànq maam Cheikh nee na. Mhm. Euh, il a donné l' exemple du euh, de, du candidat du parti pur. Mm -hmm. c' est quelqu'un qui a un background très lourd. Mhm. loolu nañ ko bàyyi xel. Amadou Ba. Euh, voilà, Amadou Ba, il a un background, je pense. Je ne le connais pas personnellement. je ne le maîtrise pas. il a été ministre des Finances. Ministre je me rappelle parce que Moussa Nafé des impôts domaines. Ah, C'est-à-dire am expérience dans l'administration. Je ne parlais pas, particulièrement de lui, mhm. mais je parlais plutôt des candidats qui sont sur la liste pour polluer. Parce que parce que profil yi, profil différent. Il a plusieurs profils, mhm. mais il y a des profils qui qui sont là pour. parce que xam nga Amadou Ba li tax ñu tànn au sein de l'APR. parce que am na ay profils yu bari yu fa nekk. waaw bu ñu demee ba ñëpp ñu ne moom la. parce que am na ci ñoom lu yaakaar ci moom am na ay avantages. parce que aussi tamit Amadou Ba quoi qu'on puisse dire aussi tamit euh, <laughs> il est moins bavard. <laughs> alors que aussi image am na lu bari lu mu lu mu lu mu jot a jaay. c'est bien. le côté ah. effacé côté effacé. c'est vrai alors que kenn mësu ko dégg aussi tamit ci ay détails loolu moom mën nañ ko. léegi man fu may tëjee rek. Mhm. mooy ce point là. c'est bien beau d'avoir 60 euh, candidats sur la liste des présidentielles mhm. mais li jar a bàyyi xel mooy jeunes yi dañu ibbi seen i bët ak seen i nopp tijji seen ay xel pare pour analyser lépp loo fi indi teg muy euh, programme danañ ko saytu saytuwaat ko bu baax mhm. parce que au peigne ba xool ñun li ñu si arrangé balaa ñuy dugg ci urne yi di joxe suñu kàddu maintenant nag maa ngi jaajëfal ñëpp ci seetaan bi di leen jox rendez-vous vendredi incha allah waaw euh, le féministe ah, la féministe. <laughs> <laughs> Ah, coach looy tàggoo parce que ñu toll nii temps bi jeex na uh-huh. bañ a génn ñu génn ci idéologie wala mentalité wu jàpp ni. Mm-hmm. politique élection. man boobu apprécié wu ma ko trop. c'est-à-dire ñoo xam ne ñi ngi fi nit ñaa ngi sonn nit ñaa ngi daj lu ne déggoo leen. Mhm. nga xëy ñu ne élection rek ñu taxaw sa kanam ne dañu bëgg a falu. Mhm. politique du rek période élection loolu pouvoir ak opposition ak ñëpp ñoo ko moom. Mhm, euh, bu ñaareel bi aussi bu il faut que ñu bàyyi xel ni ñëpp mënuñu falu. mais nit am na loo mën a apporter ci sa bu fekkee discours bi ngay tenir dëgg la. ñu fal la ak ñu bañ la fal. lépp loo gis ne mën nga ko apporter war nga ko def. xam nga man dafa am benn euh, ouvrage bu ma liiroon bu ma marqué mooy euh, change the world without taking power. yéen a jàngi woon anglais de. waaw donc euh, liñ la liñ la liñ fay jàngale en anglais mooy. nan nga mënee impacté ci doxalin àdduna bi leen doser foog nga commencé di leen doser ci arabe bi <laughs> parce que lii nag bu yàggee moom ñàkk fay damay doon. waaw <laughs> ah, parce que bi ngeen may jaay nii waaw dinaa mës a ñëw wax émission bi yëpp araab nag. waaye ba ngeen préparé fas sama kanam. la rek. parce que li tax ouvrage boobu marqué ma. mooy dafa jàngale ak philosophie boo xam ni. mën nga am impact ci dëkk sans pour autant nga jël nguur gi. donc boobu je pense que aussi war nañ ko inculquer ndaw yi tuuti. Mhm. incha allah en tout cas on restera focus. on fera focus <laughs> sur ce qui se passe et ce qui se passera. voilà incha allah dans l' espace politique. ci lépp comme Amina moom. yaa nii ma loolu <laughs> <laughs> nuyul ma sama yaay comme kaw ma droit waxaat. <laughs> waaw maman ñu ngi lay nuyu ñu def euh, gros coucou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax waaye nag euh, ngeen may ma régie baal ma rek affiché photo boobu ma leen envoyé kii nag euh, dama ko amel njukkal muy professeur Magaye Ndiaye baal leen ma rek régie Alioune Badara may ma ko image bi noonu professeur Magaye Ndiaye nekkoon sunu chef de département chef département darab à l'université Cheikh Anta Diop muy département boobu nga xam ni wax dëgg yàlla foofu laa jaar bi ma fay nekk nag nekk commission président commission pédagogique bu dep bu club arabe bu département d'arabe université Cheikh Anta Diop vraiment daf ma yaataloon ci lu bëree bëri jox ñu salle ñu fa doon euh, jàppalante ak étudiants yi ci cours yi kooku nag euh, moom la ñu war a sargal incha allah euh, samdi suba ñi ngi ko war a sargal fële nga xam ni moom mooy ca Fastef mm. euh, waaw fa lañ ko war a sargalee di saal Kocc Barma mm. professeur Magaye Ndiaye kon waa département arabe ñoom ñoo koy sargal parce que dafay dem à la retraite étudiants yi nag kontaan nañ ci yow professeur ñu ngi lay rendre hommage un vibrant hommage ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax pour euh, tous les efforts consentis pour tout ce que vous avez euh, vraiment réalisé à réaliser à l'université Cheikh Anta Diop mais précisément au département darab donc à mon à tous les étudiants arabophones du Sénégal et à tous les sortants de du département d'arabe aussi ñi ngi am une reconnaissance boo xamante ni ñun ñëpp mën nañ ko waxandoo di la jaajëfal baax a baax di la ñaanal euh, noppalu ak jàmm ndax liggéeyal nga sa réew ba tey jii nii sa réew di la sargal waaye étudiants yi nga xam ne ñoo jaaroon ci say loxo nga jàngal leen yaatal leen ñii nga jàpp ci seen soutenance ak yëpp ñoom amuñu lu dul bis bii pour saagal la kon nag moo tax à travers ma voix parce que tamit kuy xalam di ca jaayu te on est fier euh, voilà d'être passé euh, entre vos mains nga encadré ñu yal na yàlla fay la lépp li nga xamante ni jot nga ko defal bépp étudiant bu jaar ci say loxo kon professeur Magaye Ndiaye maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah